ci alquran it ci la nàmp ci alquran ci lañ ko feral ci alquran ci la dund dundam bi yëpp yaru ci alquran yar ci njabootam dee ci alquran yàlla na dekki ànd ak barke alquran ak yërmande alquran ba jannatul xilliyin aw jannatul firdawsi maha nabi sallallahu alayhi Eh, li ma gën a yéem ci moom nit la koo xamante ne nii ku ko dàq jaamu yàlla man de xamuma ko ci wala shahid naa illaa bi ma xalim naa nit doo sedd lu li nga xam ku ko gën a set ci laabu saahir ak baatin xawma ko nit la koo xam ne ba lay dugg ci jaamu yàlla laab gi suñ borom subhaanahu wa taala santaane da koy def ci teey ak dal ba yow loo wóolu wóolu wóolu di laab da nga xam ne kii laab na ci buy jaamu yàlla it la jaamu yàlla laaj muy xàq yi jaamu yàlla laaj muy farata ya ak sunna ya ak mandóob ya ya ñu sopp dana ko def ba yow mi nga xam ne xam nga sax yooyu boo nekkee ci gannaawam danga ko ci yéem noonu la góor gi meloon a ah, doon yàlla sedd ko nag mu doon commerçant mooy jaaykat waaye lépp loo xamante ne nii xam nga ko ci mbiram jaaykat moom foxoon na ba sàmmoxante ak moom loolu nag lala koy wéralal mooy commerçant bu toll ni moom de tukki di ànd ak ñu mel ni moom de charger ay conteneur di wàccee ci mosoo jëflante kenn ci bor ba nga xamante ne ni bi mu fiy jógee ay doomam wax nañ ne nana leen bay ameelu ma kenn bor man nit ñi ñoo ma ameel loolu mooy tegtale ne kon li nga xamante ne nii moom la yàlla santaane ci njënd ak njaay mu doon sàmmante ak moom li ma gën a yéem nag mooy may gi nga xamante ne nii yàlla may na ko ko walla ma tuddee ko sax ak fay ndax man maa nekk ci kër gi la ëpp ñaar fukki at yaakaar naa bu ma juumul maa ngi fi ñëwoon 2001 ba tey kon ñaar fukki at yi teg na waaye li ma gën a yéem ci lu ko yàlla may walla lu ko yàlla fayee ci yéem gi yëpp àndut ak wallaahi catu yàlla bu ma lor kenn ci sama làmmañ mooy njobootam njobootam yéem nañ ma ci tënku gi ñu tënku ci fa leen seen jur tegoon dontu ne tënku ba mat nag yombul waaye man nit mi nekk ak ñoom da xam li ñuy dund nekkoon ak seen waajur da xam la mu doon dund man yéem na ma ci tënku gu ñu tënku ci la seen way jur woon yéem na ma it ci ànd gu ñu ànd ak juboo gu ñu juboo ba léegi rek sëñ baa ngi koy wax ñoom boo duggee ci kër gi bokkoo fi xamoo fi mënoo xam ñu bokk ndey ak ñu bokk ndey muy góor ak jigéen dañoo mel ni ñoom ay doomi bàjjan lañ ak doomi nijaay na xam-xam na ci ndax boo ko seetloo ñoom ñëpp ay doomi bàjjan ak ay doomi nijaay la ñuy doon ndax ku mu ci ñoom danga naan sa yaay mën ngay wax ni sa bàjjanu morom la kon doomu nijaay ak doomi bàjjan am na ci waaye li ma cay teg daal mooy yàlla bu leen cat dab ba di leen gàllankoor ci li nga xamante ne ni seen baay yéene na ko ci ñoom mébét ko ci ñoom yaakaar ko ci ñoom yàlla na ko yàlla matal góor gi ak mbaaxam mënoo koy wax gis nga nim sàmmoxante woon ci commerce néew na commerçant buy sàmmoxante moom koo xam ne euro asaka bu jotaan wala bu jublu si li mu am yépp dana ko régler lu ci yàlla wax dana ko def loolu mën naa koy seede ndax lu bari lum daan joxe ci saalum daf ma daan woo ma ñëw mu ne ma jëlal big ma jël big mu ne ma diw sàngam nàngam ma bind diw sàngam nàngam ma bind ba ñi muy jox ñépp asaka jeex ci saalum mu ne ma kalkineel ma calculé ko mu ne nangam la mu yëkkati loola jox ma ne ma boo demee joxal ma diw sàngam nangam joxal ma diw sàngam nangam defal ma diw sàngam nangam noonu la ko daan defee nam ko daan defee ca ca saalum nga mu dëkk noonu la ko daan defee ci biir dëkk bi loolu waa jàkka ji tey buñ ci teewoon mën nañ koy seede ndax am na góor gu fi ñëw ca suba ñu koy wax bay ndeene jóob lu bari ci moom moom la ko daan jaarale ne ko waa jàkka ji ñoo moom lii jàkka ji moo ñoo moom moo moom lii ci loolu sàmmoxante ak asaka moo taxoon mu def ko ku ku aju aji màkk lu bari it la def ku yóbbu it ay soxnaam yépp nag màkka loolu it baax ak yàlla la ak ak góor góorlum ak bëgg lu baaxam waxuma ay soxnaam rekk waaye ay jigéenam sax am na ci ñum yóbbu màkk bi maanaa ay sëram am na ci ñoo xam ne moo leen yóbbu màkk loolu it ak baaxam la ak ak yaatum ndax loolu duhut farataam duhut sunnaam kanaa dañ koy yëgal ci yéegal ci ay muxsinaatam ay yu rafetam waaye nim dimbalee nit ñi ñuy dem màkka ni la dimbalee ñenn ñi ñi samp kër ni la dimbalee ñenn ñi ñi am soxna kon góor ga liñ saaxu liñ xam ci moom yëpp mënuñu koy wax waaye nit ku baax la xoon jullit xaqan la ku bëggoon mbokk la daan ko dox daan ko wax daan ko jëfee loolu it njobootam gi ñu ngi ko ci jéem a roy yàlla na leen ci yàlla dimbale li ñuy mujj a wax nga xam ne mënuñee wax lépp mooy njabootam gi ci kër gi yàlla na leen yàlla sàmm njaboot gi ci àll bi yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na yàlla gën a ubbi seen wasak yàlla na seen barke baay sotteeku ci seen kaw yàlla na yàlla gën a dëppale seen xol yàlla nañ ko yàgg ñaanal yàgg koy saraxal yàlla na ko yàlla yërëm moom jéggal ko fay ko jëfi yiwam barke alquraanu karim dëkkale ko yonant bi ak seex na tiijaan yi liñ bëgg a wax yépp mënuñu koy waxe waaye wax joo xamante ne nii boo ko doon wax ba faatu yow du jeex kon lu ci nit am doy na ñu ngi jéggalu ci kàddu yi bu ci amee loo xamante ne nii njuumte la ci jëmm ju xeebu ju matadi ci la bayee ko lu ci njib njub nag tawfiqil ilaahiya la yàlla moo ñu dimbalee mu jubee noonu ñu ngi jéggalu ñëpp de wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yàlla nañ ko yàgg ñaanal yàgg koy saraxal barke alquraan karim allahuma salli ala sayyidina